de nouveau DG et ministres dama commencé gis jikko Macky sàll bi ci yéen mooy duma ma faale lu neex waay waxal man lu ma neex laay def xam nga loolu dafa bokk ci wolof njaay lu muy tuddee égo rëy te bu leen rëy bu leen rëy de récent bi gën a flagrant bu àdduna yëpp di bàyyi xel xaw ma ndax temps yi yéen a ngi bàyyi xel Amérique gis ngeen fan yi Donald Trump seen candidat bi nekk ci benn ndaje ñu jéem ñu fetal ko maanaam am ku nekkoon ci kaw immeuble fetal dalu ko nag amin reyu ko waaye dafa laal noppam boo leen xoolee ba ci congrès américain bi ñu convoqué directement li nga xamné moy service secret parce que ñu né faay bu mel noonu warul am donte nak ndaysan du ñom sax defuñu dara waye gis nga biñu convoqué service secret bi responsable service secret bi dafa mujjé démissionner parce xam nga lutax gis nga nit bo incompétent manam buñ la joxé mbir comme tay un ministre

dama war a vraiment bu ma defee erreur ma démissionné wala may dallu ginnaaw mais pour ngeen di rëy di teg seen bakkat nit ñi di fontoo nit ñi comme ni Macky Sall daan def boo leen defee ay erreur bu ñu leen waxee ngeen def ay yëfu maa tey ne voilà maa tey man damay doxal ku mu neexul va te faire foutre loolu ñëpp mën nañ ko loolu du ngóora en fait en fait du ngóora xam leen loolu donc il faut toujours ngeen di bàyyi xel loolu ngeen di bàyyi xel ne ay doomu aadama lañu ay nit lañu dañ leen fal dañu bëgg ngeen jox ñu cër comme ñu leen joxee cër si vous êtes compétent dañ leen di tàccu bravo soo leen defee erreur dañ leen dina def ne def ngeen erreur mais dee leen rectifier seeni ay erreur ak intelligence bu leen def ni Macky Sall defoon ndax Macky Sall gis ngeen fi mu ak bo leen réew yi bi réew yi gëna avancé yépp suis réew yi nga xam dañuy jël ay doomu adama teg dans des places doomu adama bobu bu Amé ay fay day mom doomu adama je suis vraiment j'ai fait des erreurs comprendre soit mu wala erreur bi nga mom lañ koy mu arrêté ko wala lenen donc def leen ndànk faites beaucoup attention voilà léegi nag bu ma paree ci loolu ñaari cas laa ci yokkaat kaawu Anita Diop gis ngeen ku mel ni capitaine Touré mu porte plainte kii nga xam ne moom mooy Anita Diop capitaine Touré c'est un enquêteur et il est très calculé gars yi nañu bàyyi dof-dof lu on est au vingt-et-unième ku yaakaar ne au vingt unième siècle wala kenn mënul traquer kii parce que faux profil la yor wala nangam wala lii da ngeen di juum profil boo gis wala email boo gis wala ordinateur boo gis dafa am li ñuy tuddee IP adresse donte man ngaa bañ a gis sax ordinateur bi waaye da ngay xam ordinateur bi fi nga xam ne foofu la ne mën nañ koo géolocaliser bu dee téléphone téléphone yi mën nañ leen jo xam nga même mën nga sax fay localisation mais dès nga posté dara wala nga def affaire yu mel noonu mën nañ laa traqué je vous garantis que balaa muy yàgg balaa muy yàgg man maa leen garantiraatal toog fii dinañu waxtaanaat ñu ne Anita Diop de teg nañ ko loxo ci lu gën a gaaw nag incha allahu rabbi yóbbu ko fële ci loko ya tëj ko fañ ko war a tëj atte ko daan buñ ko war a daan ñu teg ko ko bu dee deful dara tamit amul dan ñu bay ko mu ñibbi mais je vous dirai que je vous garantirai que Anita Diop sera arrêtée immédiatement Benen alerte bi bo len gissé comme niñ ko defone waji Camara l'insulteur qui a continué à insulter qui ne voilà diw mo rey Didier Badji diw mo rey diw xamna donc je pense que comme il était dans un gouvernement et il devenait très dangereux je pense que amoon nañu responsabilité ñu alerter autorités yi te alhamdulillahi rabbil alamin jàpp nañ ko te enquête nañ ko te li ma wóor ba wóor mooy bu enquête bi gënee avancé dinañ ko tëj ci biir kaso bi teg ko ay sanctions parce que loolu moo normal parce que dañu nekk aussi dans un état de droit bugguñu ay doomu aadama di ñëw di tooñ ay nit te dara du leen ci fekk voilà beneen affaire bi démb dugal nañu benn vidéo suñu benn mbëkku mbokku pël Fuuta Paykum Saare boo leen fàttale ko defoon na ko fi ci temps wu élection yi bi mu ànd ak Ba Paykum Saare génnoon na fi wax fi ay wax yu rëy parce que nous nag c'est nous dans nous ñun ñëpp ay mbokk lañu ndax senegal am na ay pël Fuuta yu fa juddoo yaroo fa màggee fa foofu la ñu xam comme Guinée am na ay wolof yu fa juddoo comme Gambie am na ay saraxole yu fa juddoo nii la adduna bi nii la c'est la mondialisation ba Amérique <laughs> Amérique tey am na ay wolof am ay saraxole am lépp donc adduna bi yëpp foo dem am na xeet boo xam ne fa la juddoo fa la màggee fa la yaroo loolu am na fépp ci adduna bi mais dañu gis ay nit yu commencé di motiver ay haine maanaam di jël ay li ñuy ne hate speech di jël ay kàddu yu bon di jéem a galvaniser benn xeet di leen waxloo di leen defloo naan leen ñu def lii nañu def lale donc loolu tamit dañ ci alerter autorité yi ndax gis nañu li xewoon Mali gis li xew Guinée gis li xew Gambie gis li xew gis li xew gis li xew gis li xew ci réewu àdduna bi yépp soo gisee nit koo xam ne day prôné coxorte ak hate jëmale ko jële ko ci benn race jëmale ko ci beneen race comme ni ko Macky Sall bëggoon defee fii yoon dafa war a jël ay matuwaayam jël ay responsabilité am arrêté ko balaa muy ëpp loxo parce que Rwanda gisoon nañ ko fi gis nañu yeneen réew yoo xam ne ay ba ay xeexu ethnie am na ci Sénégal donte ñun am nañu xel ñun réew lañu boo xam ne vraiment on est très civilisé bokk nañu ci réew yi gën a civilisé ci àdduna bi

mi ngi fa mais bu fekkee yéen gisu leen ko ñu indi laat leen ko rek mi ngi nii kii da ngeen ko war a arrêté immédiatement ay wax yu doy waar lay wax kii ay wax yu bon la génnee ci gémmiñam ngi wax ko posté nañ ko ci page Facebook ba donc da ngeen war a def lépp loo leen man ngeen dem jàppi ko dugal ko prison voilà donte sax Euh, bëggoon naa wax aussi tuuti ci waxu Tahirou Sarr Tahirou Sarr boo leen fàttale ko euh, moom moo détourné woon quatre-vingt-quatorze milliards yooyu ak Mamour Diallo moom la Mamour Diallo falsifié woon ay documents euh, xam nga impôt et domaine moom ak Tahirou Sarr ñu bokk jël ay documents falsifié ba am fa quatre-vingt-quatorze milliards Tahirou Sarr moomu tey ba ñu génnee woon di xeex ak moom yéen a ngi bàyyi xel moom Tahirou Sarr mom la sei sey ak domu Macky Sall xam ngeen kon legui deal ba leer na xam nga Macky Sall yag nañ leen wax deal bo leen gis ci Senegal loxo Macky Sall la ngi ci bir xam nga deal ba leer na legui ne Tahirou Sarr mom ak Macky Sall ak Maram Fay Sall ak Mamour Diallo na woor na aduna bi yeb legui defe naa fi mu toll ni kenn amatul lo xamne war nga ko meuna dindi ci lool voilà donc kale euh, na ñaari Tahirou saar la waa xam nañu tayru Sarr beneen bi aussi ki nga xam ne moom mooy wax ci affaire immigration maanaam li nga xam ne moom mooy ki nga xam ne vraiment dafa yëkkati kàddu yu rafet laa ko mën a jàppee mu wax ko ci mbirum immigration parce que vraiment réew mu ne comme ni nga koy waxee dafa war a am mbiru immigration bu normal parce que Amérique nii tey ak nu mu mën a doy waar doy waar doy waar neex neex neex dafa am maanaam ay loi immigration yu tegu yoon te loolu réew mu ne daf ko war a prôné réew mu ne war ngaa xam ñan ñoo nekk sa bitim sa biir réew war ngaa xam ku war a am kayit war ngaa xam ku warul am kayit war ngaa xam koy jàpp war ngaa xam koy expulsé loolu yëpp dañ ko war a xam ci biir réew donc je pense que loolu tamit lu ñu war a bàyyi xel la lu baax a baax suñu autorité yi war nañu jël seeni ay responsabilité nit yu mel ni kooku ma wone sànq peut-être sax mën naa am amaana c'est un citoyen sénégalais je ne bu dee citoyen sénégalais la nañ ko interpeller tëj bu dee du citoyen sénégalais amul kayitu Sénégal mu yor genre mentalité hate yi war nañ ko jël ñu traduire ko en justice décision boo xam ne moom la justice jël rek ñu jël ko pour bañ a encourager euh, yenn coxorte yi jëmale ko ci suñu réew mi voilà donc loolu laa ne woon ma indil leen ko tey ci waxtaan te gàttal ko donc ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp tey nag Euh, comme ni le ko nous dinañu ñu ngi ñu surprise dans l'après-midi di ngeen une surprise bu neex voilà il a aujourd'hui dans l'après-midi di ngeen une surprise en Amérique vous aurez une grande surprise donc Masha'Allah. Wa alaikum wa rahmatullahi wa Barakatuh. voilà donc Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vidéo bi dama ñëw rek pour def benn vidéo bu gàtt xam naa du bëgguma sax amaana mu